aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kasira mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaajëfal di leen sant bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne Baraka kon mbokk mi dañ lay ñaan rek bu fekkente ne yaa ngi doog a dab ci suñuy vidéo nga abone activer cloche notification bi euh, te it euh, di partager lien bi ngir mu euh, gën a sori ngir vidéo bi gën a am doole mën a yegg ci mbooloo mu bëree bëri <clears throat> loolu rek la ñuy sàkku ci yéen pour ngeen defal ñu ko euh, xam ngeen ni ci suñu leçon bi jàll ci Microsoft Office bi am na fu ñu tolloon ba doon leen leeral wallu tableau yi mu nekkoon ci suñu neuvième leçon euh, tey jii nag incha allah dañuy fas yéene ànd ak yéen ci benn benn benn kii benn onglet boo xamante ni euh, paragraphe la onglet paragraphe yi moom dañ koy fekk ci accueil onglet euh, boobu nag dafa bëri yoo xamante ni da cee làqu yoo xamante ni <clears throat> daanaka ñuy jëfandikoo Microsoft Office bëriwul ñu ci bàyyi xel loolu lañ leen bëgg a woon ndax mën nga ci am ay ay ay ay mbir yu rafet sax mën nga ko ci am loolu la ñu bëgg a woon ak li nga xamante ni moom mooy numérotage mooy booy boo kenn da ngaa bëgg a numéroter euh, phrase yi nga amee euh, ci anam googu moo tax ñu indil leen ñaari ñaari ñaari misaal fii dañoo aligné. ay mots yoo xamante ni dañ ko bëgg a euh, dañ ko dañ cee bëgg a insérer ay pièces euh, bu ko defee bu ñu noppee def ko ay numéroté pour won leen euh, fonctionnalité yi ñu ci mën a am maanaam mbir yu bëree bëri mënees na ko ci am ci anam googu waaye li ci mat a préciser rek mooy benn bu nekk fonction bu nekk bala nga ko def faaw nga sélectionné bu ko bu pare boo boo ko sélectionné wut doo ko mën a am maanaam li li may sélectionné mooy tey jii bu fekkente ni lii laa bëgg wutal pièce dama koy sélectionné damay fexe ba xam ne ci accueil laa nekk bu ma nekkee ci accueil damay jubal ci euh, fi ñu bind euh, paragraphe paragraphe nag fii lañ soxla ñun fii lañ soxla pour am ay puces puces yi nag boo xoolee puces yi yow boo fekkee ne ubbi nga sa Microsoft Office puces yi doo ko fekk parce que puces yi man maa ko man maa ko jëfandikoo woon ci sama samay bagage moo tax boo ñëwee da ko fi fekk waaye bu fekkente ni dangaa ñëw fekk fi puces yi yow nga bëgg nga bëgg a amaat yeneen yu bokkut ak yi tey jii bu ma insérer woon puce bii moom mooy ñëw ci ci ci ci mboolem euh, kii phrase yi ma am moom moo ci moom moo ci insérer wu directement bu fekkee ne soxlaatuma ko damay ñëw dindi ko kon fii li ma a préciser mooy fonctionnalité boo def ci Microsoft Office. fo maanaam fii la ko jox fenêtre bi la ko jox ci fenêtre boobu ngay delluwaat pour mën koo dindi loolu ci bàyyi xel bu fekkee ne puces yi fi nekk damaa bëgg yeneen mën naa jubal fii pour wëri symbole li ñu woowee symbole symbole yi nag gisoon nañ ko euh, ba ñuy wone façon symbole yi nga xamante ni mën nañ koo am ci Microsoft Office par exemple ci biir symbole yi mën naa insérer symbole bu ma neex ci biir ci biir euh, ci biir Microsoft bi tey jii bu fekkante ni dama bëgg a def ay ay ay ay ay kii yoo xamante ni ay numérotage yoo xamante wala boog ay pièces yoo xamante ni dafay wax ci wàllu wàllu wàllu son wàllu wala tailleur ñëw ak yu noonu benn bu nekk mën naa jëfandikoo comme par exemple bu ma jëfandikoon clavier bi ma defee ok ñëw fii def ok clavier moom ngay gis fii kon fii ay fonctionnalité yu dul jeex nga fi am léegi boo xas ba insérer rek après day daal di ñëw comme ni ma insérer loxo bi nii yow tant que agité woo ko doo ko am. comme noonu ngay mën a def pour am ko léegi nag bu xas ba ñëw prise bu xas ba ñëw boo taxawee fii boo bësee entrée ci sa clavier da koy indiwaat pour nga mën a bindaat leneen boo defaatee entrée mu indiwaat ko nga mën a bindaat leneen loolu mën naa mën naa nekk kon loolu moom mooy li nga xamante ni moom moo aju ci ni ma ko defee ci bi mën naa ko defee noonu ci araab bi par exemple lii laa bëgg a wutal prise moom it mën naa ko wutal prise ci symbole yi nga bi ma ma defee nii joxoñ bi ne la la jëm mu ngi la jëm léegi waaye damaa bëgg indi joxoñ boo xamante ni dafay joxoñ mbind yi directement waaye damay dem ci symbole ni ma mën a am symbole noon laa mën a amee mën naa mën a jëlee image ci sama ordinateur wala jëlee ko ci foo xamante ni denc naa ko fi ci internet bi après ma ñëw ci loolu <clears throat> ci biir loxo yi loxo am na benn loxo boo xamante ni fi mu joxoñ baax na ñu xool ko euh, loxo bii baax na waaw yëpp ay xeetu. mbir la yoo xamante ni tey jii loo ci bëgg a loo ci bëgg def rek mën nga ko ci def kon loolu moom mooy puce yi puce ak fi nga koy wut fonctionnalité fi nga koy fi nga koy yëpp mu ngi foofu ci biir hmm, ma bu ma ñëwoon fii tey ci misaal ñëwoon ne ko image image image image fi mu doon ni fii jox na ma option pour mën a dem ci internet bi fii nag dafa maa jox option pour ma mën koo recherche ci biir internet bi wala fii bu fekkee ne dama koo dencoon kon fii bu fekkoon ne damay jëm damay delluwaat ci machine bi comme nii pour ma jël foofu benn benn image mu jël sama waa ji indi ko mu defee ok gis moom moo fi nekk image boobu moom moo fi moo fi nekk kon lii ay ay ay ay xeetu mbir yu sawla yoo xamante ni boo ko bàyyiwul xel ci Microsoft Office mën nga koo jàng ba jàll te doo xam ne yu mel nii am na ca léegi ñu ñëw ci numéroté ko numéroté numéroté euh, page bi xam nga bu dee ci suñu mbokku arabisant yi fii dangay gis ne. Euh, ay 1 2 3 comme ni nga ko bindee donte araf yi araf arab la ak ABC waaye gis ma fi yeneen gis ma fi yeneen yoo xamante ni dana méngoog man comme bu ma dem bëggoon def waaxid isnayni salaas wala mu bëgg a def ba jiim ak yi mel noonu moom dama koy wëri dama koy wëri dama koy wëri fii ma ñëw wëri ko fii fii boo ñëwee <clears throat> mën nga ko am mën nga ko amee nii nga 1 2 3 bi gis nga am naa alif ba jiim comme nii. comme bu fekkee ne dangaa bëggee a numéroter ak ak araf yi nga xamante ne mooy arafi arab yi foofu nga koy jaare pour mën ko am mën nga fi am yeneen fonctionnalité yu bokkut ak yooyu yu bëree bëri sax yoo xamante ni eh, danaa leen bàyyi yéen ngeen appliquer ko seen bopp fii daal bu ngeen fi duggee façon bu nekk mën nga ko fee mën nga mën nga ko fee def benn boo ci dugal nag boo noppee da boo boo bu kiiyee moom mën na laa indil mën na laa indil ay wala bokk da koy da koy saxal da koy bàyyi foofu ci sa ci sa ci sa kii. Euh, fonctionnalité yëpp mën nga mën naa ko fa fekk parce que bu dee ci bu dee ci français tey jii euh, waaw police yi teelu ma sax waaye ci côté france bi laa bëgg a dem tey jii bu ñëwoon ci français bi nii buñ ko bëggee din dañ koy sélectionné keyti ndaw. léegi ko dindee ñu ñu numéroté ko xool bu ko doon numéroté tey dañ koy sélectionné moom it ba léegi ñu ñëw teg ko <coughs> si bu la neexee bu fekkee ne ay ay ay première deuxième troisième nga soxla tamit mën naa nekk ñëwee fii da ngay xool première deuxième troisième comme nii nga inséré ko mu ñëw première deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième loolu mën naa mën naa mën naa nekk ñu dellu ginnaaw en tout cas daal fonctionnalité yi bu la ci neex mën nga koo jël ci anam gu la gu la neexee daal nga defee ko noonu neexee tam da la koy bindal. comme première xam nga une deux trois mu ngi nii une deux trois nekk nii comme nii en tout cas daal fonctionnalité yaa ngi noonu euh, di leen sant bu baax di leen gërëm di leen wax rek wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu leen fàtte abonné like ak partage vidéo bi jërë ngeen jëf